Dara li ngay wax nii. dama ne duul laa la duul laa la. Thank you. 23 dugub la. avancé leen foog ngeen avancé. mbokk yi nga xamante ne kaay leen xëyaat leen gën a kaay leen fóot. ngir yàlla nag bu leen jéem a xottal nag yëpp leen fii fii lañ leen yëpp. doxaale leen doxaale wala ñibbi waaw waaw sëñ bi kii waaw ngeen toogee baax na fekkee yéen ak yéen ñëpp def seen loxo gisuma leen. tey jii yaa away ak yéen. yaa awa nañu ko lalal baas yabum géléem xajul ci pante rek nañ ko lalal baas. yéen a ko lalal baas waxu géléem xajul ci pante nañ ko lalal baas. nañ ko lalal baas yabum géléem xajul ci pante. lii nañ ko laaloo la baas waxum gëlim xaju ci panter nañ ko laaloo la baas leen yaa nañ ko laaloo la baas jaabum gëlim xajul ci pantere nañ ko laaloo la baas bii lay nañ ko laaloo la baas waxum gëlim xaju ci pantere nañ ko laaloo la baas bii leen yaa awoon nañ ko laaloo la baas jaabum gëlim xajul ci pantere nañ ko laaloo la baas lii nañ ko laaloo la baas waxum gëlim xaju ci pantere nañ ko laaloo la baas gilim xaju ci pantere ne kole la la baas ñu ne kole la la baas waxul gëlëm xaju ci pantere ne kole la la baas kan aawo bi ne kole la la baas jabum gilim xajul ci pantere ne kole la la baas ñu ne kole la la baas waxul gëlëm xaju ci pantere ne kole la la baas ku di tey yaawa loolu ana ñu ne woon doo xewle yaa awa yaa xewle ana ñu ne woon doo xewle yaa awa yaa xewle yaa yaa ngay nelaw wax leen yaa yaa ngay nelaw yaa yaa ngay nelaw wax leen yaa yaa ngay nelaw yaa yaa ngay nelaw wax leen yaa yaa ngay nelaw yaay sunu aawa yaay sunu yaay du aawa yaay jooja jargal lu baas fii fii jar na lu baas jargal la la lu baas fii fii jar lu baas suuf yi jar na la albaas sa jom ji jar na la albaas suuf yi jar na la albaas sa taar ji jar na la albaas suuf yi jar na la albaas yaa war a suul xam nga bis bi day am te bis bi day neex kenn mënu ci dara sax yàlla naa ko dogal dëgg la jone ki nga bëgg yaa awa jooju ni nga bëgg maa xam ne bu yéen xàndiwul benn yoon ci yow lii la yàlla dogal jooje jooje ci sa yéen yi du ñu yow tagg ba ngay ñoom durawul ak ñoom doo bokk ak ñoomu seen maa xam nga dëkk ci réew jote di la jaay diw diw diw diw diw xoolal nga koy diwoo bindi li la yàlla dogal joo joguloo école boo dem am na directeur waaye xale yi ci réew mi yaay seen directeur ñi nangu ak ñi bañ sax yaay seen directeur ñay Njuga nit ki na yaay seen directeur yaay seen Njuga Njuga Njuga Njuga Njuga jooja lii la yàlla dogal bakka Njuga sama baay ji dikk xam nga di nga ñëw bakk leen kon jooja dikk ma jooja jaar sa yaay doga fari ma wa jokku ma sama yajaloo doga bi ci yaa awa ki ngay sëyal yow la eng maa ngi leen di fay yéen ñëpp. d'accord d'accord yaa awa sama sœur la euh, sama copine la aussi moo tax tey ma ñëwal ko ci événement uh-huh. woon alors euh, Bébé Nda sa relation ak Yaa Awa Rassoul ku la boo xam ne. Uh-huh. elle est connue yow aussi bokk gën a bàyyi xel récemment euh, tu fais fureur nga am ak Yaawa sama sœur la teg ci dafa baax dafa gentil amul benn problème mu invité ma ci mariage am après ma ñëwal ko parce que suñu sœur la ñun ñëpp parce que ku xewle rek après mën nañ la demal. kan nga laaj leen ko borom marié bi. mais yi xam ngeen xam nañ ko ko xarit. en tout cas daal Mrs T la loolu lañ mën a wax. dégg naa a xam la. waaw di ngeen ko xam xaar leen tuuti ci kanam di ngeen ko xam incha allah. ba yow ko wax. non non duma leen ko wax dégg naa professionnel. ah bon. wax dinañ leen ba laajte leen borom marié bi dinañ leen ko wax. d'accord. <laughs> Euh, doo leen ma dugal da nga da nga jubóo comme lan. yow ak sa xarit yooyu xuloo ñoom ma ak ñooñu ñooñu samay sœur lañ. Ah, Fatou Ndiaye sama sœur la Kiné Ndiaye sama sœur la aussi. donc dama ko ne varaj seulement rek mais du dara. Euh, suñu benn sœur moo ko dox. waaye maa ngi koy nuyoo passage beauty family hair ah. moo jaar ci bopp bi déjà moo jaar ci loolu. naka la leen juddoo da leen woo ngeen a yem leen ci li ngeen doon liggéey. seen xuloo bi dafa ah. ah ba la ñu liggéey c'est la première fois ñu gis xuloo ci réseaux defuma dara. defuma dara defuma dara. erreur la woon rek passé na passé na. Uh-huh. kan moo xaw ma kenn tooñul. non non seytaane moo ñëw rek ñu waroon a jotee loolu kese la mais du dara. mu ngi taw nag. jubóo ngeen waa jubóo na ñu ngi ci jàmm ak salaam. ana ana Fatou. mi ngi fii. ana nu mi ngi fii. ñu ngi ci jàmm bu baax. waa ñu ngi ci jàmm bu baax.